boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo aousubillahi samil alim min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammadin asrafi almursalin wa ala alihi wa ashaabihi xuril mayamin mbokki mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu nii nuyoo ba gën a sell nuyoo ba gën a teey te mooy nuyoo bi lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu dellusiwaat fii ci jataay bi ci niñ ko baaxoo defee ci lenn ci ay fàttali ni ki nga xamee ni fàttali day jariñ ab jullit borom bi tabaraka wa taala wax ko ci alquran ci ay bërëb yu fasanti ko bokk ca baada auzu billahi min rajim wa dakir fa inna dikra tanfaul muminin waaye mu dolliwaat ci wax ni fa dakkiri in nafaati dikra yooyu yëpp doon soññ sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ci nay fàttali ndax fàttali day jëriñ ab julit day jëriñ ab julit waaye niñ ko baaxoo defee rek jël nuyoo bi ak ziar bi yëpp ko teg ci loxol Mawlana al Cheikh Mouhamadul Muntaqa al Xalifatul Am li taaifatil muridiya ayadahu llahu wa nasara di ñaan yàlla dëgëral ko te dimbali ko ci liggéeyu seexul xaddim bi mu yàlla ba mu àggale fi mu ko bëggee ci na mu ko yéene muy liggéey boo xam ni liggéeyu xettali jullit ñi rek la teg leen siraatul mustaqim ak delloo leen ci yàlla rek ñu ko sëñ bi bëggee woon te ku xam na ni moom loolu rek mooy yitteem waaye nag gannaaw bi it nuy ziyaar bépp jullit bu nekk ci kaw suuf ak foo mën a nekk rawatina ñi nga xam ne yàlla di leen def ay njiit ci lislaam ñu war a teg nit ñi ci siraatal mustaqim xam ngeen ni ñu ngi woon ci yoonu géej gi keroog ci tukkib sëriñ bi radiyallahu an junjoon nañ waxoon ni maanaam lislaam yàlla dafa baaxoo bu demee ba mel na luy wàññiku mu daal indi jenn jëmm joo xam ni day bokk ci xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñu koy tuddee mu jadit muy kuy yeesal diine mu ñëw yeesalaat loolu nag xadis ba ci la waxoon ni yàlla baaxoon na di yebal ñeel xeet wu tedd wii nga xam ne dañ leen a yërëm ci kaw boppu téeméeri at yu nekk muy xarnu bu ne siècle bu ne bu jeexee yàlla yónni ku yeesalaat diine lislaam kooku nag buy ñëw dana fekk lislaam mel na luy bëgg a daanu cete lool jaamu yàlla néew lool mooy yàlla bari lool topp bi daa bari lool yàq bari lool loolu la fi sëriñ bi fekkoon booba mu laxasaayu nag ngir dindi loole kon jëmm jooja nag waxoon nañ junjoon nañ ko ak lenn ci bi tukki ba tukki bi bari na luñ ca junjoon kooku nag lañ ca junjoon dañoo wax ni mooy as seyxul xaddiim waxoon nañ ca waxtaan wi weesu ni mooy ka nga xam ni boo demee ci xadara suñ borom lay aw dàkkantalam ci xutbaaniya kenn du ko werante kenn du ko sikki sàkk bu dee ci wàllu siddiqee it màndargaam kenn du ko fa werante kooka nag bu ñu ñëwee moo jëlaat li ñuy tuddee at tarbiya at tarbiya nag mooy jumtukaay bi nga xam ni ci la waa ahlu tasawuf di dox ak tasawuf nag buñ ko waxee day tomb bu am solo ci biir lislaam ndax xam ngeen ni boo ne al imaanu wal islaamu al insaan nga ci teg kon jullit bi gannaaw bi mu gëmee yàlla ba noppi wax ko ci làmmiñam jëfe ko ci cëram waaye mu teg ci nag jëfe ko ci cëram ci di def yañ ko sant yañ ko togg jëf yañ ko togg lay lislaam waaye la ca tegu nag mooy ihsaan mooy rafetal digganteem ak boroomam ci jox ko jaamu gam ko war a jox te wéetal ko ca bañ ko bokkaale ci bañ ko bokkaale kenn ndax nit mën naa gëm yàlla nekk muumin ba noppi nekk muslim di julli woor la azaka aj màkk di def yi ca war yëpp waaye nag nekkagul muhsin ndax rafet ga rafetal ga ak ngëm nga dëgg dëgg dëgg des na des na kon di julli ak a woor ak a natt asaka ak aj màkka def eh, arkaanul islaam yooyu taxul nag nga nekk julli dëgg dëgg xam ngeen ni xaalatil arabu amana qul lam tuminu walakin qulu aslamna kon loolu moo tax bàyyi xel arab yi demoon nañ ba jëmmi jamono ñaan yàlla gëm nañ la gëm nañ la gëm la mel ne ku koy ñaax yàlla ni bu leen ma ñaax qul laa tamunu alaya islaamakum balillaahu yamunu alaykum alhadakum lil iman yàlla kenn du ko ñaax mel ne da koy wan naan li ma la defal ni ma la gëmee fi ma la toll déedéet xoolal xéewal gi la defal yow sa bopp moom moo la war a ñaax waaye waroo ko ñaax mun leen nag bu leen naan gëm nan waaye nee leen dugg nañ ci lislaam dugg naa ci lislaam muslim laa bokkut ak nag gëm dëgg nag waaw bu ko sa gëm def li ñuy ponk yëpp nga di ko def taxul sa ngëm mat ngëm moom dafa am bu muy àgg door a a mat gëm yàlla gëm gu mat goog yi nag ak jikko ju rafet ji nga xam ne day ànd ak yow sa digganteeg sa borom ci gëm gu gëm gu mat sëkk ñàkk koo bokkaale looy def moom doo nga mu tax ñaareel bi doo ragal ku dul moom doo yaakaar ku moom doo sàkku ngërëmul kenn ku moom wakkiilu ci àdduna loo ci am doy na wakkiilu waaw wakkiilu sa borom yëru ci kawam ci sa lépp waaye dëddu àdduna loo ci am doy la ak muñ lu ñu la teg nga muñ ko di sant yàlla foo toll ci lu néew ak lu bari feral sa bakkan ci àdduna lépp jublu alaaxira kese yooye moom la ñuy tuddee alkaani tasawuf kooku loolu la tuddee tasawuf kon xam nga Euh, nekk moomin nekk muslim taxul nga nekk nag muhsin waaye balaa nga wala bala ngaa sa tasawuf nag mooy mottali da ngay nekk muhsin nag insaan bi dikk loolu moom la waa ahlul liggéey ci nit ñi kon Seexul Xadiim mooy mooy moo tax ñu ne moo dellu si waat tarbiya teg ko ca barab ba loo gis nag am na sart am na ay yoon gaa yu baax yi nga fi jiitu woon ci loola gannaaw saxaaba yi ak taabiina yi dafa am nuñ daan sose yoon wa maanaam ña ànd ak ñoom fu ñuy tàmbaleek ñoom ak sart yi ñuy doxeek ñoom ba man leen a yóbbu ci yàlla loola mooy dañ leen di dañuy jaayanteek ñoom al mubayaa ci siñanteek ñoom ni jaayante nañu yeen ci topp seen digal bàyyi seeni tere lépp lu ngeen nu digal nu def ko lu ngeen nu tere nu bàyyi ko ndax ñoom su boobaa it xam nañ ne ñii duñ leen digal lu dul lu leen yàlla digal waaye duñ leen tere nag lu dul lu leen yàlla tere kon loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko ka nga koy wax day doon koo xam ne du la digal mukk lu dul li la yàlla digal waaye du la tere mukk lu dul li la yàlla tere waaye boo ko waxee koo xam ne nag da lay ngir bakkanam mbaamu tere la ngir bakkanam def nga njaaxum kon loolu moo tax bàyyi xel bu baax. kon ñoom dañoo matoon sëkk ci yoon yàlla ba duñ la diggal lu dul yàlla digle ñu la tere lu dul yàlla tere. loolaa taxoon nag mu dagan nga jaayanteek ñoom ci wax leen ni lu ngeen ma digal ma def lu ngeen ma tere ma bàyyi kon bàyyi xel bu baax kon ndekete sëriñu bi mat sëkk ci diggam ak ba nga xam ne leer na nañ ñi ni du dugal kenn dara lu dul du tere kenn dara lu yàlla tere kooko dagan la nga ne ko loo digal ma def loo ma tere ma bàyyi loolu moo taxoon ñoom ñi jaayanteeg ñoom ci loolu lañ daan jaayante ndax xam nañ ni nit ki bala nga ko mën a defar. yóbbu ko fi nga bëgg mu dem fa ci yàlla day doon koo xam ni boo gisee lu koy lor boo ko ko teree mu bàyyi ko ndax yàgg ko gën a xam boo gisee loo xam ne lu mu war a def la ci digganteem ak boromam boo ko digalee mu def ko boo bu boolee nangu yooyu rek nangu gu ma sëkk rek su boobaa mën nga ko yóbbu ci yàlla waaye sëriñ biit it mën naa mat te taalibe bi du mat ndax bu fekkee sëriñ bi mat na ci ñaari anam yooyu ma wax waaye taalibe bi moom matul ci bu ko sëñ bi digalee du def bu ko teree du bàyyi moom it du dem fenn day sonn rek du so day sonn rek moo tax sëñ bi tënk ko wax ni wa wajaba taatu man yaqfu rasul sala alayhi man bi sol min roasaayi man laa yura minhum siwal jamali kon war na topp koo xam ne day xeñtu yonent bi ki ngay topp nay koo xam day xeñtu yonent bi alayhi salaatu salaam bokk ci kuuy diine yi kilifa diine yu mag yi yooyu boroom mat ñi nga xam ne man laa yura minhum siwal jamaali bu leen xoolee càmbar leen yàgg ànd ak ñoom nattu leen kaw ak suuf loolu gis doo si ñoom lu dul lu rafet rek lu dul lu rafet rek lu jëm ci yàlla kon loolu mat a bàyyi xel bu baax su ko defee na nga daal di tënku nag ci ay ndigalam bàyyi ay tereem loolu mooy almubaya ñu delloo si nag jaayante ga am ga amoon ca sulhul Hudaybiya muy pacte de Hudaybiya daal jaayante waat jël seeni loxo teg ci loxoom moo xam ne nag jaayante nag ñoom léegi lu mu leen digal ñu def lu mu leen tere ñu bàyyi mu ànd ak ñoom nag sóobu ci yoon yàlla loolu moom la ñuy tudd moom la ñuy tuddee tasawuf kooku nag moo tax sëñ sëñ Tuubaa delloosiwaat tarbiya tegaat ko ca barabam ba yëkkatiwaat ponk ya teg ko ca fondation yañ ko tegoon yàlla suñ borom daal di dundale ci moom diine fekk na diine moom mu ngi deewoon na yàlla dundale ko ci Sëñ Tuubaa moom radiyallaahu anhu li ñuy wax maarifa muy xam yàlla it deewoon na jóge woon na fi yàlla dundale waat ko ci moom moom Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu wàccee ko ci kaw lool nag benn daraja bu kawee kawe ak wàccuwaay bu kawe suñ tubaa moom mooy imaam ji nga xam ni aw turam daa fees àdduna ci rafet waaye mu feesal àdduna ci ay jëf yoo xam ni ngërëmal suñu borom la ko indil mu dem ba mu jàgg suñ waxee ni sëriñ bu mag bi foo déggee nit ni sëriñ bu mag bi rekk xel yépp daw jëm ci moom ñépp ni sëriñ Tuubaa te moo na booba day magu fi ñu ko fi mag ñu ngi fi njëkk fee woote itam lu tax ñu tudde ko nag sëriñ bu mag bi jaaxal na ku nekk waaye daal li wér te mooy der bu ñuul daal boo ne sëriñ bu mag bi rek ñëpp xam ni sëriñ Tuubaa la ñu wax kenn du ko xëccoog moom rawatina borom mu xel loolu nag moo nekkoon mbir moo xam ne borom xalaat yépp jaaxle woon nañ ci ci waa ngir mi ñu yëqamtiku ngir xam daraja ju rëy jooju lan moo ko jox waaye jagle googu lu ko jox kenn ku ne ci borom xam-xam yi ci gaa yu baax yi. loolu ngay yuqamti ko di xool di ko jéem a lijjanti ba xam lan moo ko jox loolu waaye mu nekk nag lu jafe jafe xam nekkoon mbir yu kawe moom nag moo yoroon jikko ju sell ju kawe joo xam ni jikko kawe joojee ci la mujje woon moome xoli waay juróom yépp ñaari way juróom ci jikko ju rafet la moome seeni xol ba ñu bëgg ko mbëggeel gu jéggi dayo kon ndekete jikko ju rafet ci lañuy ñuy moome doomu aadama waaye du ci force naka noonu ay aqaaribam ay jege waale ay jege ñaaleem yëpp mu ngi leen moome woon ci jikko ju rafet kon ndekk nit ki jikko ju rafet mën nga caa dox ak moom ba mu mel ni sab jaam nangul la ni la sab jaam di nangule Sëñ Tuubaa noonu la ko ñu àndal nangule woon nangu nangule woon waaye yoru woonu yat nag di leen forcer yoru woonu yat di leen forcer moo tax mas naa waxtaan ak mag ñu leen waaw man de xanaa jaaxle ngeen ñu ko ñu ko mbàkke lu mu doon. mu leen ñaari nit dañoo dend kenn ki balaa am ci nit ñi dara day jël aw yat di leen dóor ak a jàpp ak a yeew ñu door a jël seeni alal di ko jox te buñ ko joxee seen alal xol bu tàng jëpp lañ cay ànd lañ cay àndal kooku moo doon waa nguur gi ñu daan force nit ñi di leen laaj lempo galak te nit ñi mu naqari leen metti leen joxe gi bañ leen tey forcé mun leen am keneen ku nekk ci seen wet koo xam ne du laaj kenn dara du forcé kenn ci dara ba noppi nit ñi jël seeni alal di daw di ko yët di ko jox ànd ca xol bu sedd guy te la leen di metti naqari leen moo doon ñu jox ko seen alal ja mu bañ koo nangu su boobaa day mel ni seen adduna daa tukki mu ne xanaa diggante ñaari ñii de jaaxal nañ leen ñu ne ko waaw mun leen waaw loolu mooy li ñuy tuddee izzatu taqwa wa mulkul wilaya loolu mooy tedd ngay ragal yàlla ak nguurug wilaya waaw tedd ngay ragal yàlla noonu lay noonu lay mel waaye mulkul wilaya itam nguurug wilaya noonu lay mel kon wàll yi loolu la yore ñu féete ci nguur gi tam mooy ñooñu mu doon wax mooy ñooñu mu doon wax kon ci jikko yooyu ci la moome woon ñi mu teel ñoom ñëpp ak ñi mu tolloonteel ay at ñëpp ci jikko yu rafet yooyu la leen moome dem ba kenn du jaxasoog moom ci njëlbeenu feeñu mbiram ba ci mujjam gi moom Sëñ Tuubaa mu tàmbalee ba ci fi mujjee kenn du jaxasoog moom kenn du jaxasoog moom lu dul nga jàq nga xaw nga am ragal akuk tiitaange boo nee jàkk jàkkaarloog moom gu dugg ci yow loolu nag yàlla rek ko xam muy xëy ba gu yàlla def ci moom suñu borom tabaraka wa waaye kenn nag du nekk fi moom nag ab diir rek lu néew néew ba jógee fa ba dem te fa nga dem ràññiku woo fa ñaareel bi it fa nga dem doo fa bëgg a yàgg bala ngaa yàgg rek nga nga yàkkamtee dellusiwaat ci moom yàkkamtee dellusiwaat ci moom ndax ñàkk doyal ci moom ci jikko yu rafet yoo xam ni moom la kenn koo xam ne nag ànd ak moom day mel ni sa bëgg-bëgg dañ koo këf jox ko ci loolu la màggee nag gonee ci waxambaane ci màggati ci moom Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu xam ngeen ni ci wàllu natt yi nag dikk nañ ci hadiis Yonent bi mu wax ni. ki gën a tar ci nit ñi ay nattu inna asada naasi balaa an al anbiya ki gën a tar ci nit ñi ay nattu mooy yonent yi yonent yi ñoo gën a metti ay nattu ulul azmi ñoo ci gën a metti nattu topp ci yonent yi ca des moo tox mu dem mu dikk ci xadis ni asadan balaa an al anbiya ki gën a tar ci nit ñi ay nattu mooy yonent yi ñi ca topp su ma la am salu fa am sal ñeneen ña ca toppaat ñeneen ña ca toppaat mooy gannaaw yonent yi saxaaba yi si nga xulafaa raasidiina yi liñ daj ci ay nattu mi Seydina Omar mi Seydina Abu Bakrin Omar Ousmane Aliyun si nga liñ daj ci àdduna ci ay nattu ak mboolem yeneen yeneen saxaaba yi nga xam ne jotuñu woon a nekk ci eh, xilaafa gi gannaaw ga gis nga taabi yéene yi topp ci ñoom li leen seeni noon woon ci kaw suuf ñii leen rey ñu di leen jàpp ñu di leen exile di leen yóbbu fu ne gannaaw gi nag gaa yu baax yi ñëw ku ci gën a dëggu ci jaamu sa borom gën cee dëggu ci moytu lu yàlla tere gën cee jóg nag taxaw ngir jël bindeef yi sowee leen képp ku ci mas a taxaw taxawaay boobu rek daja nga ak noonu yoo xam ni sonal nañ la lool. loolu nekk doxalin suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu nit waaye natt yi gën a tar nag mooy fit yi ab xarit xarit yu réer xarit bu réer dafay sànq ba xarit ba natt yooyu moo gën a metti say nattu ba ca tegu mooy pexey noon yu am xel pexe noon yu rëyum xel pexey noon yu rëyum xel yooyu nag moo daloon Sëñ Tuubaa ci nattoom boobu ba ca teguwaat li ñu tudde sumumu wa sumoomu aqaaribi wa sumoomul aqaaribi ak tooke ji nga xam ni ci jegeñaale yi lay jóge tooke yoo xam ne ci say mbokk say jegeñaale lay jóge ñëw ci yow ñooñu nag mooy ixwatu diini mooy sa mbokk yi ci wàllu diine wahum ixwatu diini min amatil muminina kon natt yooyu sëriñ bi ci diggante xat-xat yooyu la duggoon muy maanaam fitnay xarit bu yewoo di ko léeg mu defar ni da lay sowe da defaral fekk man lay dugal ci guta kooku mooy xarit bu yewuwut naka noonu noonu bu amum xel noonu bu réyum xel ku ne xam ne nasaraan yi li ñu yoroon ci xel kuñ masaan pexeel ku ne doo rëcc sëriñ bi rëdd la ah, naka noona ñi nga xam dañ laa jege te mel ne tooke lañ yor xam ngeen ni bokk bokk bari woon na ko jege lool bu ñu amul moom mbokk laqarab it am moom mbokku diine te teewut bokk nañ ci ña doon kalaame ca gouverneur général ngir bëgg ñu sànk ko benn mu fiir ci dara jaam defe ne bu fi nekkee dara jaam day wàññi tax mu dem kalaame ko li daloon sëriñ si benn mu fiir ci dara jaam ba tey ci féete ci wàllu àdduna gi muy buuri àdduna yi ñoom itam seen dagg ya daan jóg léeg di dem ci sëriñ bi yooya leen metti woon ba ñu dem di kalaame di kalaame sëriñ bi ndax ñaari façon yooyu ñoo fi nekkoon di ñuy kalaame sëriñ bi kon ñooñu ñooy sa mbokk yi sa ci yow sa yor lu mel ne tooke fett yoo xam ne léeg rek ñu dóor ko léeg rek lu rëy dal ci sa kaw boo ko seetee ba ci biir rek say mbokk la jóge say mbokk la jóge moo tax sëñ Bassirou Mbacké radiyallahu anhu wax ni jullit ñi moom lu bare bari ci ñoom ak sëriñ si amuñu woon lu leen naqari ci sëriñ bi ci wàllu diineem ndax xam nañ ni bu dee ci wàllu jaamu yàlla moo leen ko gën a barilee bu dee ci wàllu xam-xam moo leen ko ëppale bu dee ci wàllu ragal yàlla it moo leen ko ëppale moom xamoon nañ ko bu dee wàllu dëddu àdduna it moo leen gën a dëddu kon wàllu diineem daal dara naqariwu leen ci woon luñ ko war a kalaamee waaye nee na dara nag taxul woon ñu koy ñu koy lu dul ni fëx gi nit ñi fëx wut si ko rek te bàyyi leen ñoom rax ci dool yi lañ yore léeg-léeg muy wàññi ko dikk ci moom suñ Basiiru nee na radiyallaahu lii rek lañ ko doon clamé waaye du dara ci seen wàllu dina leen naqari ci moom kon jublu gi nit ñi jublu si woon ci moom bàyyi leen ci benn sabab nag buñ gisul bu bu bu saahir bu feeñ xanaa def defu suñu borom rek. Euh, ak dolliku gi ñuy dolliku ak dem gi dem ba nga xam ne dañoo mujj ñi ànd ak moom moom sëriñ bi ci boppam ñu ànd ak moom buur na seen bët ba doy leen doy goo xam ni gisatuñ dara yëgatuñ kenn xamatuñ kenn ku dul moom bëggatuñ kenn ku dul moom it kenn ku dul moom it daanaka day mel ni xeeb nañ la ku moom rek day mel ni xeeb nañ la ndax lan ndax màgg gu màgg ci seeni xol. màgg gu màgg ci seeni xol ak mat gu mat ci seeni bët xam nga nit kii dara dana mat ci ay bëtam bu duutu mën a xool lenn lu dul loola noonu la Sëñ mel ci taalibe yi rawatina jamono jooja nit ki dana màgg ci xol dara dana màgg ci xolam ba xolam duutu ca mën a jàpp dara lu du loola duutu ca mën a gëm dara lu dul loola duutu ca mën a bëgg dara lu dul loola foofu la sëñ bi tolloon ak ñoom foofu la tolloon ak ñoom loolu nag bi nga xamee ni mësta dañ ci loolu ci gone akuk mag ci li ñuy tuddee xaybatul wilaaya muy weguk wilaaya waaye wa izzi wa bi ñu waxoon ci ak maandu ak kattan xotti baax te dara war lu samp rek jëm ci mbirum suñu borom tabaaraka wa euh, ci la nit ñi tàmbalee nag <laughs> ñenn ñi di ñëw ci moom di jébbulu si nekk ay taalibe ñenn ñi di ñëw di xaritoog moom ñu ci des itam des ci lañ nekkoon rek des ci lañ nekkoon daal di sax ca lañ nekkoon loolu nekk doxaleenu sëñ bi bu ko defee nag buur yu buur yu mag yi ak seeni jaraaf ñu sosoon ci ñoom ak ñi nga xam dañoo di dawoon wuti leen ñooñu nag tàmbali jànkoonteeg nag sëriñ bi ak taalibe yi mu àndaloon ak ak taalibe yi nga xam ne ñoom la àndaloon di leen fitnaal waaye itam nag di leen nangu seeni alal ñoom murid waaye loolu lépp nag teewul mbir mi di yokk rek mbirum sëñ bi di yokk rek di yokk rek di yokk rek di yokk rek ci la comment ci yi daal tàmbali nag jëm ci gouverneur général nag ci kaw kalaame yi complot complot moo tax sëñ Bassirou nee na ñi njëkk a kalaame bañ demee gouverneur Sénégal dinañ laaj ni waaw ki ngeen di kalaame comme doon ñu ne ko ku ñuy wax Cheikh Ahmad Bamba ñu ne mooy kan mun leen ñooy kan définir leen ma ko wax ma leen ma kan la ñu ne ko aalimun la borom xam-xam bu rëy la aabid la jaamukatu yàlla bu mag la maa araf naa anhu shay'an min sulmi xamuñu dara ci moom ci tooñ ci tooñ ak tooñ xamuñu ci dara ci moom. boroom xam-xam yi itam mosuñoo xam ci moom lenn lu jubut gouverneur général wuyu leen leen kon nag moom lan na kon kon li ngeen di def mooy dem xajoowu leen ko génne leen ay muritam yépp fépp fu ngeen nekk ci kajoor ak kajoor ak ak njàmbur ak siin dàq leen képp ku ko fa ku ko fay tuddoo murit yépp na ngeen leen dàq ñu dem fekk ko fa mu nekk ca Mbàkke Bawol yéen ngeen ngeen féete rek. dal leen seen kaw nañ lu ñu am na fa nañ fa jóg ak lu ñu am ñu daldi nag mel ne kuñ tënkoon te leen ndax yàgg nañoo jëlal murid yi een ci lañ daal dal seen kaw nag ñi ñu dàq leen nangu seeni alal deseetuñ dara ñu daw ñoom ñëpp ñëw Mbàkke Bawol fekk fi sëriñ bi suñ Basiru nee bi ñëwee nag di jàmbat ne sëriñ bi dalal leen ni leen yéen de yaakaaroon naa ni du ngeen jàmbat dara ci kaw suuf ci ay tiis ak i nattu ndax yéen de saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci lislaam te saxaaba yooyu di seen bàyyi ci lislaam de lañ dajoon dajagu sax asaka ja kon nag yaakaaroon naa ni lii ñu leen def lu tuuti lay doon ci yéen nee na nee na sëñ Basiru di nee na bi leen sëriñ bi waxee loolu ba noppi nee na dañoo daal di beesaat di tëb di dal ñii di daanu dañ ñii di mbëkk mel ne lañ leen defoon lépp ci ay tiis ak i naqar sëñ bi wiide na ko génne na ko ba mu wecc ci waar kooku mu leen waar rek ci ay minutes kon ndekee sëriñu tarbiya bu mat sëriñu tarbiya dëgg-dëgg bu ab taalibe am accès ak naqar ak ñàq tiis bu ko dalalee ba dalal ko bu ko waaree ci yàlla rek lam am woon lépp lay deñ day génn ba set wecc mu nekkaat nit ku bees caq duyuwaat ci leer noonu la sëñ bi defoon ak ñoom ci jamono jooja moo tax sëñ Bassirou Mbacké nee na yaakaar naa ni loolu nee loolu mi ngi nekkoon xilaala sinni wasasin wa zasasin wa zasasin nee na mi ngi nekkoon atum junni ak ñetti téeméer toll ak wala atum junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn wala atum junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar nee ci la tolloon ne ci diggante boobu nag ci la ràmbaa ji daal di dal nag tuuti nag ak jaxase gi ndax li ko li leen dalal mooy sëriñ bi dafa daal di bind leetar. yónnee gouverneur général daal di koy leeral ni ko ñii da ay mbañeel rek tax waaye man di nekkuma ci lenn loo xam ni dañ ko gërëmut yàlla gërëm rek ci laa nekk nekkuma ci lenn loo xam ni nag jalgate na sart yi tënk waa réew mi yëpp jalgate wu ma ci dara wéelu ma benn wéelu wu ma benn loi ñi ma àndali tooñuñu te ay citoyen lañ am nañ xaq comme ñëpp ci réew mi tooñuñu wéelu wuñ loi defuñu dara defuñu benn crime. kon nag lu tax ñu sañ dal seeni kaw jël seeni alal di leen solal loolu daal xaw ma lu mu doon dal te yow mu yaay gouverneur général nga wax yaa njabooti nit ñi kenn ku ne nga war ko gën war koo teg ci yoon kon loolu yaa ko war a lijjanti gouverneur général nag loola jeexital ci xolom ci la daal di wax ni ci la daal di wax ni nag mboolem ku daloon ci kaw murid yi ci jamono yooyu ci buur yi ak ku man a doon maa ngi leen di xamal ni. na ngeen leen daal di bàyyil bis na ko tey murit bu ne na dëkki fu ko neex na dañ ñëpp dellu seeni kër kenn ku ne dëkki fu ko neex buñ demee nag ba nga xam ni loolu ngeen di wax ne mooy seen diine gis ngeen ñu salfaañe ko mbaa ñu yàq ca mbaa ñu def ca lu ñu ci war a def su boobaa ngeen door a wax li nga xam ne mooy loi bi nga xam ni mooy loi nguur gi buñ ci eh, safaanee dara maa ñu bañ ci dara loo xam ne dañ ko war a nangu su boobaa it wax ko ñu lijjanti ko waaye lu dul loolu daal ñoo yéen a yem da ngeen leen bàyyi kenn ku ne dellu fa mu nekkoon loolu nag amoon na atum 1307 euh, ba ci 1306 ba ci 1307 amoon na loolu ci la ci jamono boobu la amee woon ci gàddaay gi kon euh, gis ngeen sëñ bi euh, yim jànkoonteel ci ay coono ak i xat ak i xat-xat door a mën a taxawal lii nga xam ne moom la ñu tuddee yoonu murit yoonu murit kon loolu lépp li muy wanewaat rek mooy taalibe bu nekk jógaat takkuwaat te xam ni yoonu murit la ko sos mooy bada al islaamu gariban wa sa yaudu gariban fa tuuba lil quraba loolu rek moo ko sos yonent bi dafa waxoon ni lislaam tàmbali na ci tumuranke tàmbali ci mettit tàmbali ci coono waaye dana demaat ba dil siwaat ci coono boobu waaye bu boobaa day ak texe ñeel na ña nga xam ni ndoxandi mu googo ak coono booba ak tumuranke booba ñoom ñoo koy yanu ñoo koy gàddu ko defee ak texe ñeel na leen kon loolu mooy li yonent bi waxoon alayhi salaatu wasalaam kon euh, ci loolu la sëñ bi dox nag ba tukki bi am ba mu génn ci ay këram dem Mbàkke Bari Jolof ba natt ba fekk ko foofee su yàlla incha allah ci waxtaan yi ñëw dinañ wax euh, nan la génne Mbakke Bawol ba ñëw tuub ba ñëw Daaru Salaam sanc ko ndax wax nañu Tuubaa ak Daaru Salaam ñooy ñaari dëkk yi gën a tedd ci man ci kaw suuf ndax li tax ma sanc leen daa gën a tedd ci man lu nekk ndax sanc moo leen ngir dara lu dul yàlla rek te man jaamu yàlla damaa àgg foo xam ne moom ma gën a lépp jaamu yàlla rek ak sellal jëmmum ji rek tax ma sanc leen ñoom ñaar sanc ma leen ngir bayukaay sanc ma leen ngir fi ay maam nekkoon may naa ko dundalaat waaye dama leen a sanc ngir jaamu yàlla képp képp ak sellal sama borom kese wéetal ko moo tax ñoo ma gënal dëkk bu mu mën a doon ci kaw suuf muy tuubaa ak Darou Salaam nam fa génne nag dam génne Mbacke Bawol ñëw Darou Salaam ba ñëw Touba dikk Mbacke bari Jolof ba dem ci tukki bi kooku aw yoon la incha allahu bu ñu dellusiwaatee ci waxtaan man e, maanaam foofu la ñuy tàmbalee incha allah e, ñaan daal mooy yàlla yàlla may dégg ak topp Eh, fekkeel nu bis bu tedd bii nga xam ne mooy bisub sëriñ Tuubaa bi di soññe nag ci kenn ku ne waajal ko ci anam yu gën a eh, rëy gën a kawe anam yo ko daan waajale di ñaan yàlla yombal lépp nag te gàllankoor yëpp dañ te buñ ko weesoo rek lépp lu mu fekk kon wala balaa ñëw sax lépp lu niru lu ñu ragal rek loolu yàlla na fi jóge yomb na yàlla lool te mën na ko yàlla defal dégg ak salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo